ne rek kii di président Macky Sall dafa souligné woon ci campagne électorale am ne lii di pouvoir judiciaire ak pouvoir exécutif nekkul benn yoon moomeelam loolu nag leen war du lenn rek lu dul jëfe li nga xamante ne rek moom lañ daal di bind kenn amu droit nag laal ko waaye nit ku ci nekk rek war na am droit nag garantir ko bu baax ndax ay mission yoo xamante ne moom lay euh, dox mission yi importance lay dox waaye nag mission yoo xamante ne rek mission yu indépendante nekkoon kaddi Macky Sall ba rek moom guy Marie Sagna la mu daal di xamle moo di ne kii di Macky Sall moo waxoon mbir mu nu mel kon nag jot na rek mu daal koy jëfee ndax nag bu ñu xoolee ba ci biir rek dafay mel ni rek yàlla ak may yàlla lam déclaré woon ak la mu nekk di def ni jamono ji wuute na lool ba tey rek moom Guy Marie Sagna la mu daal di xam ne rek kii di président Macky Sall ak pouvoir am rek ñu ngay utiliser déclaration yoo xamante ne rek yu doy waar la ndax nag li nga xamante ne rek xon nañ ko ñeel système judiciaire bu sénégalais eh, coono yi nga xamante ne mu ngi koy eh, jànkuwante wuute na lool ba tey rek moom Guy Marius Sagna dafa daal di insister waat nag nee na nag dafa bëgg a xam ba xam li nga xamante ne nag moom mooy indépendance su pouvoir judiciaire ci yan principe lañ ko war a teg ak naka lañ koy eh, xamee ndax nag nekk na mbir moo xamante ne rek bu nasaxee rek lii di état de droit maanaam ak ak sañ-sañu doomu aadama rawatina démocratie mën na nasax ba tey bu fekkee ne rek rôle Ousmane Sonko dafa nekk nag yee askanu sénégalais yi waaye nag manigance bi nga xamante ne rek ñu ngi koy ñu ñu ngi leen koy manigancé euh, ba noppi rek ay kàddu yi nga xamante ne rek ñu ngi koy yëkkati nag di ko gàll ci deram euh, jot na rek ñu xoolaat bu baax mbir mu nu mel ba tey rek moom Guy Marius la mu daal di xam ne bu fekkee kii di Ousmane Sonko lenn kese nag moom moo ko ñor mooy changement bu am solo boo xamante ne rek yàggoon na nag di ko wax laata nag muy wax ne rek dafa bëgg a nekk cinquième président du Sénégal waaye naka fexe rek ba justice bi ñu daal di koy gérer sàmm ko loolu moo mës a nekk lii di devise Ousmane Sonko maanaam un peuple un but une foi ba tey rek kii di Guy Marius Sagna dafa mel ni rek day kaasal ki nga xamante ne nag moom moy Ousmane Sonko ba noppi rek jarale ko nag ci favour administration bu judiciaire ndax lépp rek jamono ji nag am na xeex boo xamante ne rek boo xoolee ba ca biir lii di politique rek desul ci ginnaaw na rek ñu daal di jubali askan wi ak ñi nga xamante ne rek ñoom ñoo nekk ci justice bi ba tey rek Guy Marius Sagna la mu daal di déclaré moo di ne conviction bi nga xamante ne am na ko te mu nekk loo xamante ne rek lu mënta ñàkk la nekkul benn yoon que ne nag bu ñu jotee nguur gi ñoom ci seen jëm bopp dinañ xeex wala ñu euh, fay wante ak li nga xamante ne rek moom mooy nguuru ko Macky Sall ginnaaw fukki at ak ñaar yi nga xamante ne rek euh, dundu nañ ko waaye nag li leen lenn kese la mooy fexe ba sénégalais yi nekk benn fexe am justice boo xamante ne justice bu libre la fexe am état de droit boo xamante ne rek dañ koy teg ak démocratie bu mucc ayib ba tey rek moom Guy Marius nag la mu daal di eh, xam ne rek moo di ñi fi nekk nekkuñ benn yoon seen adversaire ba ñuy xaajale ka ak séddale ak wax loo xamante ne nag du noonu seen rôle daal lenn kese rek mooy fexe ba sénégalais yi nekk benn booloo am confiance nag ci seen réew am confiance ci seen ak ak seen sañ-sañ am confiance aussi ci seen justice di kàddu kii di Guy Marius Sagna jërë ngeen jëf ci teewlu bi bu leen fàttee abonné bés cloche de notification ngir amaat yeneen info